ginnaaw bi ñu jeexalee suuratu ak tuur ca ay bés génnu génn jotoon na wax ak yéen ci li saar wi ëmb war a ñëw tey incha allah jéem koo door ñaan borom bi mu jàppale nu ba nu àgg ca afa min haazal hadiisi taajabun ñu ngi koy baaxoo di defe kon mooy jàng al aaya dóor ñëw ci jéem a firi ak jéem a tekki aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim wan najmi ida hawa ma dalla saaxibukum wa ma xawa wa maa yantiqu anil hawa in huwa illaa waxyun yuuxa sadaqallaahu l-asiim wa ballaxa rasuuluhu l-kariim wa naxnu alaa maa qaala rabbunaa wa mawlaanaa mina shaahidiin allaahumma ijcal l-qur'aana lanaa fi dunyaa qariinaa wa fi l-qabri mu'nisaa wa fi l-qiyaamati shafii'an wa alaa siraati nuuraa wa ila aljannati rafiqa wa baynana wa baynaar sitran wa xijaaba wa ila alxayraati kulliha dalilan wa imaama bi fadlika wa karamika yaa karamal akramin mbokk yi yàlla na jàmm yàlla na ci ak seen njaboot tabaarakallahu ñu dal saar wu suurat an najm mooy suurat numéro am ci aaya juróom-benn fukk ak ñaar boroom bi tàmbalee ko li saar yu bari di tàmbalee te mooy bismillahi rahmaani rahim wenn saar moo ko amul ci alxuraanul karim mooy soor saar yu nga xam ne moo tudd ak taw ba waaw moom moo amul bismillahi rahmaani rahim saar waa ngi tudd at ba ci saar woowu xam ngeen ne euh, ni ko boroom xam-xam yi di jàngalee euh, dafa nekkoon xutbab aj ak ya ci aju yépp moo tax amul bismillaahi rahmaani rahiim waaye ginnaawaat ginnaaw suba maanaam damaa bëgg wax la onze septembre saar wu mooy saar bi nga xam ne junjoon na xew-xew bi amoon Amérique ci ay joxoñam ndax saar wi du wax nangam dana am Amérique 2001 du ko wax waaye ñi gëstu alxuraan di tegale baat ya ko toftale lépp lu am mën nañ ko ca dindi moo tax bi yëf yi amee 11 septembre 2001 ñu demee ci alxuraan dañuy fekk niñ koy toftalee dañoo gis ne booy wàññi jus yi ci alxuraan boo agsee ci taw ba ci ngay am ons jus u jus fala taw ba nekk ñaar mu taw ba mooy surat numéro neuf suratu tawba mooy surat numéro neuf kon boo amee onze muy jus yi am nga neuf muy saar wi léegi nag boo tàmbalee wàññi baat yi ñooñu ko ñoom imaam Aboubacar di defe yàlla na ko yàlla yokk wér booy wàññi par baat di wàññi par ba agsi fi laay ji tàmbalee wala fi laay ji yem da am ñaari junniy baat ak benn muy deux mille un onze neuf un ñu ne fama bi yëf yi mu ne ala shafa juróom waaw ñu ne ñuñ ko jiiñ mu ne xanaa ña nga xam ne yu xaatiluuna fi billaay fa yaqtuluuna wa yuqtaluun ba mu jeex gis ngeen siñ yooyu euh, benn borom xam-xam ne az-Zandani moo ko doon génne te lépp lu xew ci àdduna si nag noonu la mel ci alxuraan borom bi tàmbalee kon bisimillahi rahmaani rahim ci saar wi ndax ci am bisimillahi rahmaani rahim la bokk nam la moo ci am ñaar waaw yóbbaale géew taw ba <laughs> waaw borom bi tabaaraka wa taala taal tàmbalee saar wi lu ñu tuddee ngiñ dafa am ci pénc mi lu ñuy wax waat ak lu ñuy wax giñ waaw lu ñuy wax waat ak lu ñuy wax giñ waat mooy ki def ñu ne ko yaa def mu ne defuma giñ mooy ki bëgg a def ñu ne ko doo ko man moo tax bu nu watee am réew ba teg ko ci ay loxo ñu ne kañ teg loxo ya ci moom giñal mu yëkkati loxoom ne maa ngi giñ ne danaa sàmm nangam ak nangam danaa sàmm nangam ak nangam ba mu jeex ñu bàyyi ko mu dem laxasaayi ko ak laxas ci ndigg la tappal ko ay yëf am na téere yoo xam ne alxuraan lañ koy def nga teg ca sa loxo am na téere yoo xam ne ab texte la ñuy def nga tiim texte ba daal di jàng texte ba <laughs> tiim texte ba jàng texte ba ku ñëwaat ñu joxaat la texte ba nga tiim ko jàng ko waaw moo tax borom bi daal ne wan mi waaw giñ naa ci biddiw ba giñ naa ci biddiw ba isa hawa bu bu jógee ca kaw wàcc walla bu daanoo walla bu fàqee waxta suqutihi min ulwin fóoreja ibnu abbas radiallahu taala anhu mu ne aqsama subhanahu bi nujum isan qaddat fi ithri shayatin xiina istiqaaqi istiraaqiha asama noonu la ko fóoreja firi ibnu abbas nee yàlla giñ na ca biddiw ba bu fàqee topp seytaane pour lakk ko ba biddiw ba fàqee topp seytaane pour lakk ko ndax seytaane daa bëgg a fekkee ndaje ma lu mu fa fore yët ko gisaanekat yi sunu borom wut eh, lu koy lakk loolu benn ci riwaayaati ibnu abbas yi la beneen riwaaya mu ne an najmu atharaya sa saqatat ma al fajr waaw beneen riwaayaam ba loolu la ca wax mooy borom bi giñ ca bidiw booba su suux see ndax fajar a ngi jot ndax bidiw du fi fanaan yendu fi ci waxin wolof waaw jant bi du fi yendu fanaan fi ci waxin wolof ci li suñu ba yi di gis ah waaw seytaane yi dañu daan fekkee ndajem assemblée bu sunu borom ba almalawul aala daanañ ca mën a jël xibaar yóbbul ñuy gisaane mu tax jamono jooju li gisaane mën a gis bi ñu yónnee aleyhi salaatu salaam ñu xam ne bu gisaane di gis penc mi yàqu ci lañ tëj bunt booba tere shayaatini al ins euh, shayaatinul jinni ne leen doot leen fekkeeti assemblée bi ku bokkul ca assemblée ba doo ko fekke xaw ma nag vikkuloo lay tudd xaw ma waaye ba léegi nag seytaane yi ña ngay jéem a dem ñu ngay jëli information ña ngay taataan lu ñu fa amee nag duñ ko xeeb buñ ñëwee yokk ko def ci seeni commentaire xam nga tey boo yebalee benn journaliste muy couvrir benn événement euh, du du du indi integ intégralité événement bi déedéet day enregistré ñëw teg dafi commentaire am tabarkàlla la ca des nit ñi am seenu dégg xay na seytaane bi bi ñu yónnee alayhi salaatu salaam loolu moo leen dal xam naa bis bu ñu yàlla may nu àgg ca sóoratul jinni ba àgg ca aalamul jinni wa shayatin danañ ci xam mbaa ñu gis ci xëy na lu gën a yaatu alxasan ba mu àgg ak sa ci wan najmi giñ naa ci biddiw ba isa hawa bu daanu wala bu suuxee alxasan mu ne almuridu fil aaya an nujum ida ntasharat yowma alxiyaamati ñu ne ko ha mu ne borom bi daax wax ne isal kawaakibu ntasharat nee na foofu moom la déggee laay ji mooy biddiw yi suñu tasaarooxee ba benn biddiw bu ne fàqe fa nga nekk jóge fa te dootoo fa dellu ibnu kasir moom tam mu ne alxaaliqu yuqsimu bi ma shaa min xalqihi wal maxluuqu laa yambaxi an yuqsim illa bil xaaliq demal ca muxtasar ba tafsir ibnu kasir waaw jukkib ñett xatum ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom benn waaw noonu la sunu borom sañ naa giñ ci lu ne waaye kenn sañte giñ ci kudul moom hmm? waaw waaw naa giñ ci lu ne waaye moom day tere ku giñ ci lu ne moom dañuy giñ ci moom moom lu ko neex giñ waaw lu tax ndax ngiñul borom bi wutul ku ko seede ci jëf ju ñu weddi te ngiñal nit ngiñal almaxluuq boo ko seetloo day wut ku ko seede ci jëfam ju ñu weddi nga ne tey day maag Serigne Babacar Sy Mansour al xalifa li taifa tijaniya ñoo bokk añ nga wax ko ci mbooloo am ku ne la ah ki ne la ah daf laa weddi ki ne la ah daf laa weddi mu des mu des nag nooy def ba mbooloo mi gëm la ci waa ji la weddi ndax waa ji moom mën ngaa def lu ne te fekk daf lay weddi rek waaye nag pour mbooloo mi gëm la la ngay def loolu moo tudd wut ku la seede boo ne wallahi mooy yàlla fekke na añ ba waaw tallaahi ba tey mooy yàlla fekk na añ ba waaw billaahi wala wallaahi wala tallaahi walla yeneen ya yàlla fekke na jëf ja léegi nag ñu wax ne boo fi bàyyee yàlla wax keneen da nga ne kooku fekke na ko même bu ko yàlla fekkiwut loolu moo tax ngin li tomb boobu lislaam bi aaya buñ ci dugg buñ ci dugg ndax billaahi boo ne yàlla fekk na ko moom kenn wérantewul ne fekk na ko waaye boo jëlee keneen ne fekke na ko lislaam di wax ne ah yaa ngi ubbi bunt ba bu ubbi ko boo ca duggee génn tëla moo tax booy wax rek neel billaahi buñ la gëmee baax na buñ la gëmul xayrul wallahi kadalika tallaahi wa rabbil kaaba yu demee ni yooyu mbokk yi giñ ci tuuru yàlla yi tabaaraka wa ak giñ ci meloom yi tere ko waaw terewuñu ko giñ ci turam yi mooy wallaahi giñ ci meloom yi mel ni nga ne si nafsi bi yadihi ci jëf ya aw wa muqallibal xulub yooyu euh, loolu mooy giñ am na yu dagana giñ am na yu dagunu te giñe ni ma ko waxe sànq waaw alayhi salaatu wasalaam daana wax ne wallazi nafsu muhammadin bi yadihi waaw maa ngi giñ ci nga xam ne sama ruuxan ci loxoom daana giñe noonu waaw jibril nee nañu daana giñe bi izzatillah taala waaw ak itam wa izzatuka wa izzatika laa yasmawu biha ahadun illa daxalaha aw kama xaala xeeti giñ yooyu te mooy giñ ci yàlla ci turam yi ak ci meloom yi ak ci jëfam yi moom nag daf noo tere nu giñ ci leneen ndax lim mën a seede ku dul moom doo ko mën a seede waaw sallallahu alayhi wa daa wax ne man kaana xaalifan fal yaxlif billaa aw liyasmut waaw kuy giñ giñal ci yàlla te noppi soo munta giñ ci yàlla nga noppi hadis boobu rawaahu albuxaari ca jukkib ñett xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom muslim nekkil na ko ca kitaabul aymaan ca jukkib ñetteel ba alimaam ahmad nettali ko ca jukkib ñetteelam xatum juróomi téeméer ak fanweer yonent bi wax ne man kaana xaalifan ku nar a giñ ku nar a giñ fal yaxlif billaahi na giñ ci yàlla te yam ca képp aw li yasmut bu noppee mu noppi walla mbaamu mu noppi alayhi salaatu wasalaam waxaat na ne laa taxlifu illa billah wala taxlifu illa wa antum saadiqun hmm? waaw waaw mu ne bu leen giñ lu dul ci yàlla bu leen giñ lu dul fekk ne li ngeen di wax dëgg la allahu akbar bu ci yàlla lu fekk li ngeen di wax dëgg la waaw rawaw abu daawud waaw ca kitaabul aymaani wa nuzuur nasaa yi moom tam ca kitaabul aymaani wa nuzuur wala wa nuzuur ñoom tam necc la nañ addis boobu yonent bi nee na bu kenn giñ lu dul ci yàlla bu leen giñ lu dul la ngeen di wax dëgg la ndax giñ lu dul dëgg moom beneen affaire la mu waxaat ne moom aleyhi salaatu salaam ci beneen hadis man xalafa bi xayrillaahi faqad kafar faqad ashraka ngeen baal ma képp ku giñ te giñoo ci yàlla bokkaale nga ah képp ku giñ te giñoo ci yàlla bokkaale nga bokkaale gi mooy lan mooy li ngay def ci wéet kenn fekkiwu ko ku dul yow ak yàlla ak ña ko fekki xëy na boo giñee ci keneen wala leneen mbaa ñeneen jox nga leen li nga doon def ñoom fekke nañ ko te fekke lépp fekke fépp fekke ñépp kenn rekk la mooy borom bi tabaaraka wa taala mbokki maa ci ci suuratu najm mooy surat numéro cinquante bokk saari wàcc makka borom bi tàmbalee ko giñ ma nekk ci tomb gi ñooyu ginnaaw bi mu ne wan najmi isa hawa nag ci li muy giñ mbokk yi waxaat na feneen ne man xalafa bi xayri laahi faqad kafar fee faqad ashraka fii faqad kafar waaw faqad ashraka ji al imaam ahmad moo ko nettali faqad ashraka at-Tirmisi yi moo ko nettali ak alxaakim waaw ñoo ko nettali waaw kon ngiñ ndekete woyofut ngiñ ndekete woyofut waaw mu ngoog eh, ngiñ nag am na ñetti xaaj ni ko boroom xam-xam yi di jàngale ngiñ loo xam ne bi ko waa ji di def xam na ne xamuus la ngiñul xamuus mooy ngiñ loo xam ne bi waa ji di giñ moom wóor na ko ne li muy giñ du dëgg dafa bëgg a giñ ndax ñu gëm ko mu am lu muy placé walla mu giñ ndax ñu gëm ko mu am lum ko yokk walla mu giñ ndax ñu gëm ko mu am lum wàññil ki bëgg wàññi man xalafa ala yaminin wa fiha fajir liyaqtatia biha maala mrin muslim laqiya llah wa huwa alayhi qadban rawahu lbuxaari wa abu daawud wa tirmisi wa ibnu maaja alayhi salaatu salaam nee na képp koo xam ne dangaa giñ te ngiñ la du dëgg danga bëgg a am ca ngiñ la alalu jàmbur bés bi ngay daje yàlla jéppi na la waaw ndax alal warut tax nga jël ko moom jëmmam ji gincate li ngay wax du dëgg loolu nag bi ginnaaw tudd na ci alal day dem ci képp koo xam ne dangaa ne mu commerce mbaa ci ñaw mbaa yu deme ni koy luy dugal xaalis ak génne ñu moytu ca giñ ca waaw jaay ma téléphone bi indi trois cent mille ah seer na di lu fa ngiñ di wut lu fa ngiñ di waaw Cheikh Diom marché Alice lu fa ngiñ di jaay ma téléphone bi ñaata la nga ne indi trois cent mille nga ne ah seer na di lu fa ngiñ di yow mi jaay téléphone bi waaye daa tàmbalee giñ wallahi def naa ci lu ko ëpp ah ndax wax nga dëgg te même loolu su fekkee wax nga dëgg daa xaraam cim njaay ndax bunt bi muy ubbi waaw kon giñ ndekete dégg ngeen li ci alayhi salaatu salaam wax gum ci ay addis yi nga xam ne bu ci nekk jéem naa koo indi waaw képp koo xam ne dangaa giñ la tax nga giñ mooy daa am loo bëgg ca ngiñ ma loo ca amee benn muy alal walla muy maqaama mbaa daraja mbaa nga sippil keneen darajaam nee na kooku euh, laqiya llaha wa huwa ali xadbaan tey dajeeg yàlla yàlla jëppi ko yàlla bum nu jëpp yàlla bum nu jëpp ngiñ loolu ku ko def dangay kafaara dangay tuub dangay jéggalu dangay kafaara dangay tuub dangay jéggalu mu ngi ci kanam insha allah nun koy kafaara ak lu ne demee ndax bàkkaar bu mag la moom ngiñ loolu rawatina nag su fekkee def cay jokkoo pour jot ci yëfi jàmbur def ci poosam beneen li mooy ngiñ loo xam ne waa def bu bu njëkk baa bu ñaar mooy ngiñ loo xam ne euh, ngiñ lu rëcc la ci aw làmmiñ nga xam ne jubluwu ca jël yëfi jàmbur jubluwu ca detteel nit jubluwu ca yëkkati boppam dafa rëcc ci aw làmmiñam rek boroom xam-xam doon ko tudde laxwul yamin laxwul yamin waaw waaw tabarkalla eh, mel ni ku nekk ci këram ñu laaj ko joxe nga dépensam mu ne billaay yóoru ma dara waaw billaay yóoru ma dara waaw waaw def nga nangam nga ne laa wallaahi waaw ñu ne yooyu lañu tuddee laxwul yamin dafa rëcc ca làmmiñ wa moo tax borom bi nee na ci ngin ji ma noonu laa yu aaxisukum llahu billaxwi fii aymaanikum ngiñ lu toll nii yàlla du ko jàppe kenn du ko binde bàkkaar du la ca mere bu ngeen dajee walakin yu axizukum bi ma ay aymaan waaye la nga fas ca ngiñ la nag fas ci yéene ame dara wala nga detteel ca dara walla nga suufeel ca dara loolu lay tere ba deme ci almaida aaya 89 borom bi indi na ko ca euh, foofa ñetteelu ngiñ bi ci xaa xaaji ngiñ yi bi ma waxee xamuus wax laxwu beneen bi mooy al mutaaqida wala al munaqida laa bëgg a wax waaw mooy nit ki mu ngi giñ fi mustaqbal ne danaa def nangam loolu nga xam ne moom la moom la président yi di def njiiti réew yi noonu nga xam ne moom la docteur yi di def fajkat yi noonu nga xam ne moom la àttekat yi di def magistrat yi allahu akbar nga xam ne dangay taxaw giñ ñépp toog di la seetaan nga yëkkate sa loxo waaw daal di giñ waaw danaa sàmm nangam danaa def nangam duma def nangam danaa wax nangam loolu mooy tax yooyu ngay giñ boo ko defut ñu ne dangaa trahir xeet wi waaye woyefuwul noonu képp nag dafa gën a rëy moo tax alxuraan wax ne walakin ma walakin yu axizukum bi maa aqadtumul aymaana ni ma ko waxee léegi ci aaya 89 ci suurat al maida ngiñ wala ngiñ lii ngiñ lii may wax ni ku ko def def nga bàkkaar te war naa kafaara waaw ku ko def war na te war naa kafaara waaw lu ñuy def la ci koo xam ne kii dafa giñ te lim giñ du dëgg mooy kafaara waaw mu ngoog eh, léeg-léeg nit war a kafaara ci lum waxoon dana ko def benn mu fàtte ko walla mu néew ca doole walla ñu forcé ko ca walla ñu teg ko cay tegandaay alayhi salaam nee na rufia an ummati alxata wa nisyaan wa mastukrihu alayhi sallallahu alayhi wa sallam nee na xeetam wi yëkkatil nañ leen njumte duñ leen ko jàppe yëkkatil leen fàtte duñ leen ko jàppe yëkkatil leen luñ leen forcé def loo leen ko te du seen coobare duñ leen ko forcé waaw mu ngoog lu am solo la lu ama am solo la walla bu ñaaral bi fi kafaara di wàcc nit ki mooy mu giñ waaye séppee ca ngiñ la dara lu mel ni insha allah walla illaa insha allah waat ne danaa dem cil ma xam mbaakol teg ca incha allah waaw wala duma dem mbaakol lu dul mu soob yàlla illaa incha allah moo tax yonent na ne man xalafa fa qaala incha allah lam yaxnas lam yaxnas walla lam yaxnas boog koo xam ni kii dangaa giñ te teg ca incha allah ngiñ jël ngiñ la du jur kafaara du jur wax lu dul dëgg waaw loolu lu am solo la eh, bu fekkee nit nag beneen tomb dafa giñ waaye ay mbokkam topp ko bam war a dellu ginnaaw ca ngiñ la ah? maanaam su ma waatool su ma giñoon ne dootuma dem kër nogay su ma su ma giñoon ne dootuma dem kër nogay ndeysaan góor nogay ga woon ca Cees ni ma ëpp naa def ndax nogay ni ngeen demee nangam nangam nangam ba ba ba ba convaincre ma lislaam nee na sa sama ngiñ loolu kafaara te def ko moo gën a lislaam ne ah xas naa ko giñ waaw kafaaratu def ko léeg-léeg nga dégg ñaari wujj yu meroo rek kenn ka ne ko daal di na dutu ko tuddati ah, ëpp naa def ëpp naa def de léeg-léeg jëkkër ak jabar ca lay doon waaw léeg-léeg xarit xarit ca lay doon rek tabarkal ci jamonoy corona ji dafa am mbokk mu ñëw jox mbo moroom ja loxo kooku ne ko dañuy tere joxante loxo yéemu ca de mu ne ko giñ naa ci yàlla dutuma la nuyooti allahu akbar mbokk mi su fekkee yaa ngi may dégg <laughs> demal nga nuy ji ko te kafaara moo gën doxe fa ba yomal xiyaam doo ko nuyu ndax la cay dikkee ëllëg du baax diggante yooyu kenn du ci waat kenn du ci giñ duutuma la tuddati daal di giñ ëpp naa def moo tax eh, yustahabu lil muslim isa xalafa ala tarki amrin min umuri l an yati maa xalaf maa xalafa ala tarkihi wa yukaffir an yaminihi noonu la ko borom téere ba jàngalee moo tax sunu borom ne wala tajalu wala tajalu laha urdatan li aymanikum <laughs> bu leen ma doxale seen diggante ak seen yu baax yi luy loolu mu ne ku waat ku waat ne du defati nangam te loolu lu baax la waaye waaye na na na kafaaraate def ko waaw ma waxaat ko su ma giñoon ne dutuma dem kër nogay imaam lay Ndaw ndànd taal otoom ñëw ni ma ëpp naa def waaw kaay rekk ñu dem <laughs> dugal ma ci oto bi yóbbu ma kër nogay damay dem te woor ñetti fan damay kafaara laa bëgg a wax moo gën a lislaam ne xas naa ko giñ nañ bàyyi ñun ñëpp maag yéen xas naa ko giñ ndekete def lu baax li moo gënal suñ borom xas naa ko giñ te xas naa ko giñ suñu borom nee na lu tax ngeen ma gi ma doxalee seen yu baax yi ne xas naa ko giñ kon duma ko def di hmm? lu tax waaw sallallahu alayhi wa jàngalekat ba mu ne ida xalafta ala yaminin fa raayta gayraha gayran minha fa kaffir an yam an yaminika wa anta wal wa anta allazi huwa xayr wala wati ngeen baal ma wati allazi huwa xayr nee na soo giñee soo giñee nga gis li nga giñ am na lu ko gën walla def lii moo gën li ngay bëgg a bàyyi nee na kafaaraal te def loola kafaaraal te def loola waaw loolu nag tomb yi bari lay am ndax nit day giñ diggante muy soxnaam diggante muy gorom waaw giñ na duutoo dem sa kër goro ëpp naa def nooy def sa jabar nooy def sa jabar waaw yonent bi nee na demal sa kër gor yi te nga kafaara moo gën rek ah xas naa ko giñ déedéet xas naa ko giñ moom xëy na bu ñu noppee ñun ñëpp daañ daañ ci gis suñu bopp yëg ne jeex daa war a jeex mbokk yi maa ngi ci sóoratu naj mi maa ngi ci sóorat numéro cinquante trois bokk ci saari wàcc màkk nekk juróom benn fukki aaya ak ñaar borom bi tàmbalee ko ginnaaw bismillaahi rahmaani rahim wan najmi giñ naa ca biddiw ba waaw moom lu ko neex giñ waaye nun nag atti yi may atti nii mooy sunu xeeti atti yi ngiñ waaw mu ngoog eh, am na lu ñu tuddee ibraarul ibraarul xasam loolu sax ci àqi dëkkandoo yi la bokk bu fekkee fi ngeen nekk dafa am ndox ñuy jënd machine pompe machine bi jar trois millions ñu recensé waa koñ bi gis ne ñu fi dëkk ñépp bu ku nekk joxe soixante mille mu mat yow bi ñuy cotiser mu fekk la nga dem cil maxa mbaakol bàyyi moor xujja cotiser la ndax wóor nag moom jàpp na ne boo ñëwee danga fay mu jël engagement wu giñ ne da nga fay lislaam ne boo ñëwee ngiñ loola na nga ko dëggal bu fa nekk mukk naan ko bay Mor man kat la ko woon Baye Mor man kat yoruma xaalis bay Mor la quinze déedéet tomba nga noonu bu am solo engagement bi nit jël ci yow rikk matal ko waaw ngiñ loolu mu giñ ci yow hmm? rekk na ko def wallaay ndeysaan eh, ñaari jigéen danoo toogoon ca sallallahu alayhi wa ba xéewal ñëw fa xéewal ñëw fa ñu jox kenn ki ab tàndarma walla ñaari tàndarma mu lekk benn ba moroom ji ne ko waa lekkal mu mu mu mu gàntu ne du ko lekk moroom jë giñ nag ne ko danga ko lekk nag yonent bi ne ko lekk ko waay lekk ko waaw ndaxte lekk gi mooy tax bàkkaaru ngiñ li wàcc moroomam ji waaw mu ngoog mu ngoog lu am solo la giñ tamit giñ tamit su fekkee nit kii moo koy def yéena ja da ci am solo lool ndax lépp lu doom aadamay def ci pinc bi daa am mbirum yéene na teg ci yéene mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ak seen njaboot nga ñëw ci beneen tomb am solo mooy kafaara kafaara mooy waa ji dafa giñ walla nit jigéen ji moo xam nit ki dafa giñ jullit bi ba noppi lim giñ du noonu mu war a kafaara maanaam tey su ma nee duma dem kër noga yi <laughs> ñu ñu ñu ñu ñu mocc ma ba ma nangoo dem ngiñ la ma giñoon dama koy kafaara lu mooy kafaara kafaara daa am ci koor daa am ci giñ kafaara daal mooy li li effacé bakkaar bi nga def lu ñu tuddee kafaara waaw kafaara lu am solo la mooy mooy li effacé li nga def moom laa doon junj booba léegi kafaara kafaara kafaara daa am ñetti yëf wala ñeenti yëf ngeen baal ma bu nit ki giñee dara te lim giñ du noonu kafaara bi ci jiitu mooy fukki miskin lay jox ñu lekk miskin mu nekk mu jox ko euh, muddu mi ngi mel ni ca korite ga ba ñuy def muddum koor su fekkoon dañ ne mudd ku nekk mille francs la kon moom day jox fukki miskin miskin bu ne mille francs buñ ne cinq mille la kadalika buñ ne dix mille la maanaam daal fukki miskin daal na leen jox euh, taam mu di aw ñam loo xam ne buñ ko jotee danañ ca man mën a añ waaw wala danañ ca mën a def deux repas <laughs> deux repas waaw añ ndékki waaw nga jox leen loo xam ne mën nañ caa ndékki mën nañ caa añ loolu nag boroom xam-xam yi ñoom docteur Abdoulaye Lam ñoom danañ ko di natt wax ne su doon temps sàngam dal ku jox miski nàngam mën na caa ndikki ndikki lu baax mën na caa añ añ bu baax waaw mu ngoog am ñu ne mën na leen dajale ci benn bool ñoom ñépp ñu bokk añ walla benn bool ñoom ñépp ñu bokk reer ba suur nag wala ku ne ci ñoom mu jox la lu la suur noonu la ko boroom xam-xam ya euh, jàngale loolu mooy kafaara tomb bu njëkk bi bu ñaareel bi mu wuti leen ay yére yére yu mën a julli ginnaaw dafa giñ te lim giñ du dëgg mu koy kafaara yorul ñam wam leen jox ah mu xotti leen yére yu mën a julli waaw bu fekkee ci jigéen daane ci biir mbooloo ma waaw mu jox ko kamisol yére bu ànd ak muuraay ba mën a julli waaw tabarkàlla bu ñaar yooyu amut goreel ab jaam moo fay sës taxriiru raqabati mu'mina goreel ab jaam moo fay sës ndax lislaam dafa ubboon benn fenêtre pour jële fi ak njaam waaw euh, mas invité maa invité ndeysaan tàkkusaan defe naa RTS lay ame ku ñuy wax Fat saar moo ko fa doon def invité ma ci ñu doon waxtaan ci tomb bi lislaam li mu def pour goreel pour jaam yi wàññi ko lool ma ne ko tomb bi ca la bokk waaw goreel ab jaam loo wax rekk mu ne góoral ab jaam bu ñeenteel bi woor ñetti fan yu toftaloo waaw su fekkee mënu ko nag nee nañ mën naa woor ñetti fan yu tàqalikoo mbokk yi ñu ne bum jóg rek dem na damay woori lu dul fekk dafa lott ci yu njëkk ya bala ngay wodd woddu walla ngay goreel jàmm day fekk nga nga lott ci njëkk ya ba dama suratul maayida aaya 89 fa kafaaratuhu te mooy ngiñ la itaamu asrati masakin min awsati ma tutcimuuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba fa man lam yajid fa siyaamu thalathati ayaamin dalika kafaaratu aymaanikum ida xalaftum yàlla na jàmm yàlla nekk ci ak seen njaboot maa ngi ci suratu najm maa ngi ci aaya ju njëkk ji wa najmi iza hawa maa ngi ci ngiñ li sunu borom indi tabaaraka wa taala teg leen seen baaram foofu ci wa najmi giñ naa ci bidiw ba iza hawa bu fàqee ñaa ngi jégalu soxna yi di jégalu sëriñ si ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër leen bàyyi suñu mbokk alaaji sëriñ Mbàkke Sylla ci jotaayam bii di xamtu tabaarakallaahu yàlla yàlla sàmm nu sàmm leen aar nu aar leen màggal gaa nga ñëw yàlla nañu fekk ba dem yàlla nañu fi bàyyi waaye yàlla na yàlla yërëm suñu mbokk ma al imaam Alioune Badara Ndaw nekkoon ca Kaolack ad daayi al kabir yàlla na bàmmeel di noflaayam yàlla na suuf fooyof ci kawam yàlla na àpp saree ki nekk loon coolo xaral di seen mbokk Adja Issa ngeen àndoon ci tafsir beeg seen mbokk Alioune Sall yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu